ci weeru avril bu jotee mu mel ni rek président de la république euh, Macky Sall du nekk ci yoon ñu bari nag loolu la ñu jàpp euh, Sénégal naka lay def ba daal di dund ak li ñu dàq élection yi Mamadou Mignane juuf euh, di am yaakaar ni dara du xew. mais xëy na balaa boobu. ñi fi nekk tey. commencé ak président de la république président Macky Sall. moom itam xëy na war na mën a jël beneen dogal koo xamante ni day tax ñu toog fi ñu war a toogee. waxtaanee fu nu war a waxtaanee. ñu ba nag dugg ci kàmb. jongante bi ñu dàqandi waral nag ab crise politique daal di juddu naqari ñu bari ñi nga xamante ni nag ay observateur lañ ku ci mel ni Eliman Kane. il s'agit lii moom jaay doole dëgg la. mën nañ ko tuddee sax coup d'état. ndaxte wax ji wax ji mooy dafa jàdd yoon. tekk ça amène. ngir coup d'état constitutionnel bañ a am lu bari rek faw ñu daal di koy soppi ñi bokkul ci langue politique bi maanaam société civile bëgg ci andi seen njàppandal. elle apportera son soutien. dina indi njàppalam ci kaw société politique bi tamit déglu ko. nangul ko ba pare yombal ko mbir yi ngir mu mën a indi wàllam. de sa waxtaan nañu ak sendi centrale syndicale yi. pour euh, l'idée grève générale bi ñu lancé woon waxtaan nañu tamit ak euh, ñi nekk universitaires yi donc ñu ngi nii di xalaat boole ko gën ko yaatal nag lañ bëgg pour def campagne digitale boo xam ne commencé na ba pare dinañ ko gën taral léegi tamit am ay action yoo xam ne ne prévoir nañ ko def muy ay organiser ay marche ay manifestation ak kujje politique bi nga xamante ni nag dafa bañ dakkal processus électoral bi ak ñi fare ci gouvernement bi di tekki seen gouvernement bi fi nekk ne dina woy yore nguur gi ba décembre loolee nag nar a jur jiixi jaaxa ci langu politique bi ngir loole lépp bañ a am waxtaan képp moo fi sës